gis nga yi xale yi di foye daara ji lu ne génn na ci bés soo nomal xayri daf ma dafa yërëm xale yi ma ko lu tax mu ni fekke wu la neexoon ba daara di neex fekke wu ko mu ni loolu la leen yërëmi ma ne ko pourtant ñoom yëguñu kenn gis nga rappeur yi ci mbedd bi mag ñi daan jiite jàkk ji yépp moom lañu woon te dañu gënoon teey waaye moom lañu woon te it seen xaqiqa jamono lañu daan wax xam nga toll woon nañu jamono kenn xalaatul sax affaire robinet yu kenn xamul li ñu xalaatoon mooy teen ku deful teen ci sa biir kër ñu yedd ndax bëgguloo euh, bokk li sa njaboot yem ci sa kër foog ñu dem duyu ci teenu keneen te loolu nag ñoom bëgguñu ko bu ko defee rappeurs yi jóg ku ci mel ni góor gi Jibril ñëng ku ci mel ni góor gi woon ba ci paan nga xam ni dañ koy wax waaye duñ ko wax ci wolof ci arab lañ koy wax bu ko defee arab maa u mooy ndox ci ñoom biir mooy teen daar mooy kër jaar mooy dëkkaale bu ko defee ñu adapté ko ci espèce di wax maawu biiri daari jaarina ahla min maay biiri daari jaarikum walla ما هو بيري داري جارينا أحلى مما يبيري داري جاركم والله ما هو بيري داري جاركم أحلى مما يبيري داري جارينا حل لولو دن دان وخ بچي الحاج عبد العزيز دبا مومنتم دقون نجي ba eh, di ko appliquer ci mbaal yi ñoo nappe booba nit ñi dañ daan àbbante mbaal mais xuloo bi dafa bare parce que danga àbb mbaalu jàmbur te doo ko dellu mu nekk coow walla nga àbb ko ba noppi di ko delloo mu ni yéex nag nga tooñ ko ci ni ko sa mbaam mbaal mi baaxul mu appliqué ca bayt ya yaa saayidan fi shibaki wa saabixan fi biraki laa taxqaranna kiika kiifa kiika kiika kiikaka mag ñi lu ne lañu xam moo tax bu xale yi tëb daf laa reeloo waaw dafa fekk mag ñi gënoon tey na ñoo gënoon tey wax dëgg yàlla nanguwuñu lu vulgaire waaw euh, lu ne dañ koy yiwal waaw lu ne dañ koy yiwal